secteur boo méttiwul sax si fortune kii boobu am na yoo xam ne bu ko ko xañoon bu ko ko xañoon tey. fonds commun non bu moom bu maanaam bu ko tey fortune am du yegg si fii. dëgg la dëgg loolu dëgg. waaw dëgg la. ñoom ñu nekk opposant di fayee ko ay fonds commun di ko Pastef pour am doole pour xeex Macky Sall dàqu leen kon leen gën Macky bàyyi leen mu. Ah? waaw Barthélémy Dias leen gën. al ah, tax nga walul ah man Barthélémy Dias sama kaalaay laay jël. a ah, ci jëlee sa kaa man Barthélémy Dias dafa def benn acte en tant que maire man ma nekk emploi ma attaqué ko sama Facebook dem ci rajo municipal de Dakar attaqué ko fa dégg nga wax ju mu jox ma demande d'explication moom Barthélémy Dias waaw mu ne mu jox demande d'explication. waaw acca mais demande d'explication xam nga moom du la ko jox directement. waaw day wax sa chef de service mu jox la demande d'explication. jox la ko mais nañ ko ko andil. léegi nga def naan. ah ma joxe demande d'explication mu leer nañ ma ma ma répondre après. def weer weer weer daq kenn dàqu ma. dégg mais deful weer. xam nga sax mun na ne kon noonoo non ay preuve yu doy mais xaaral maa ngi koy xaar yàlla deful weer ma am crise cardiaque. crise cardiaque masawaay. déglu fii mu wax la bu baax. bu baax maa ngi hmm? ma def crise cardiaque ba ma defee crise cardiaque intervention bi yàqamti lool setiwu dépassé 1 million maanaam frais yi quoi dépense bi li nga war a joxe xuma xuma nga toog di ko dajale boo ko dajalee kañ moom nit ki perte nga ko waaw ci dar daaru urgence nga war a joxe loolu xayma un million mu fay ko moom Barthélémy Dias hmm? waaye yow xanaa koo geeral geer gu mel noonu nga ëlbati ko defal la loolu wer de mënoo ci fàtte mer ah wer mënoo ci fàtte mer de waaw waaw ah, loolu gën loolu de yéemi na voilà waaw waaw lo de euh, lo de exemple boobu de xas waaw dama ne waaw xam nga man man man li may wax mo ngi ni Sénégal yëpp di ñëpp di la seetaan dégg nga di wax waaw hein te maa ko attaqué te mu attaquer wu la te mu attaquer wu kon même su fekkon tay bashir dafa def lu mu warul def mais jappal ni rek bashir boko daqé lu mu lay yakal moy ëpp lu mu lay defaral ngeen ñu baax ah tey lu tax ma ne la même ñi Abdou Diouf leen gën Abdou Diouf leen gën ah waaw xam nga neena abdou Abdoulaye mu leen gën Macky leen gën waaw mais Abdou Diouf leen lu ab Abdou Diouf gënee. ab leen Abdou ma jox la beneen exemple. jox ma beneen exemple. exemple exemple laa lay jox. acca exemple bu njëkk bi. Hmm. mooy bi Khalifa Sall nekkee ministre du commerce. Hmm. Hmm? Habib responsable des cadres bu PDS. ñu woon ci cabinet conseil technique. déggoo de. maa ngi déglu bu baax. Habib si hmm. mi, Habib si mi Habib si Habib si waaw Habib Sy. waaw. nekkoon ko tey PCA Sénélec. te te mu nekkoon candidat. waaw. te nee na delloo na ginnaaw. candidateur bi ñu ne ko déedéet conseil constitutionnel. waaw waaw waaw. bokkoon na. Hmm. ci temps parti socialiste. boobu mu ngi PDS mooy responsable cadre yi. bokkoon na si conseil technique Khalifa Sall. Hmm? conseil technique yaa koy fal. waaw ah, loolu nomination la. yaa koy tànn. sa cabinet la bokk. waaw. ñoom ñaar ñëpp ñoo ko wax ku ne ku ne moo ko wax ma dégg man nii ñoom ñaar ñëpp laa wax xalifa Sall ak ak Habib ñoom ñaar ñëpp ku si nekk seede na ko mu ñëw voyagé woon Afrique ak tubaab yi Khalifa Sall ne leen kii moom mooy responsable suñu principal parti d'opposition ku ñemeeti loolu hmm? demal seeti conseil technique El Malick Ndiaye yi waaw ku si nekkul Pastef politico waaye xel xalaatul nga nekk opposant <laughs> ci cabinet bi waaw loolu foog naa yéen na maanaam kon ñi Abdou Diouf a leen gën ah. yenul maanaa conseil technique duñ koy tànn sur la base de critères pas politique critère de compétence la conseil technique nga wax pas critère de compétence xam nga xam nga ministère kan moo fa xej ñaari politiciens nga rek ngay dugal chef de cabinet ak de cabinet waaw loolu amoo droit dugal beneen politicien ndax directeur de cabinet fonctionnaire de la hiérarchie A la secrétaire général fonctionnaire lay doon de la hiérarchie A ñooñu mën nañ bañ nekk conseil technique yi

Abdourahmane Sek Omer ma la doon wax Faye Abdou Diouf le directeur régional de l'urbanisme de Durbel. mais le directeur régional il est nommé par le ministre Il hmm. yow que le responsable de la CD de position hmm. mais directeur normalement de la dàq to nekk directeur moom te pourtant ministre yi daan ñu ko def man la ñii Abdou Diouf a leen gën Abdoulaye Wade leen gën Macky leen gën ak Barthélemy Dias ak Barthélemy Dias parce que ñoom nee nañ lu ñu wax lu ñu wax hmm. nee nañ waxuma la waxuma la seen ministère sax mais RTS sax pour ñu jël la fa il faut nga nekk militant waxuñu ko semaine bee paase ci ci kaw asma ci kaw asma waaw Khadija nee nañ RTS sax pour ñu jël la fa nee nañ sax léegi sax léegi chauffeur sax pour nga dugg administration il faut nga bokk Pastef. <laughs> fekk na nga bokkoon ci xeex bi. ci projet bi waaw bokkoon ci xeex bi. mais buñ la mosee gis. da doon def sol lakostu Benno Bokk Yaakaar ba ñu def la soixante douze heures yooyu. Hmm. ñu ne yow doo sax nekk chauffeur. kon ñun fu ñu jëm. <laughs> ay ñun fu ñu jëm. ay fu ñu jëm. Hmm. kaaw.